coopérative Rouftak mooy réseau coopérative bu réseau de l'union de formation agricole foncière bu Kaolack actuellement dama ñëw représente coopérative yi au niveau di lap bi ñu doon def la pour atelier bi ñuy wax pour structuration agropole centre bi ñu ngi depuis le 16 ba le novembre ba tey lañ ko terminé vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax daal di wax ne vraiment bi ñuy yàlla defee ñu ñoo bokk si ndaxte aussi ñu dañuy liggéey ci valorisation des produits locaux par le biais de la transformation suñu coopérative bi dafa composé ay GIE ak ay personnes morales 80 pour cent ay femmes lañ quoi vraiment daal on a été dans de bonnes très bonnes conditions vraiment li ñuy ñaan nag aussi :fra décision :fra ñu fi jël ñu concrétiser :fra ko le :fra plus :fra possible :fra quoi :fra ndaxte nous :fra avons :fra pour ambition daal vraiment participer si sécurité :fra souveraineté :fra bi nga xam ne par :fra exemple :fra moom la état :fra du :fra ko non :fra tu :fra sais :fra xam nga aussi :fra nag bu fekkee ne mbir mi moom boo ko gëmee rek loo gëm rek affaire :fra bi day yomb ñun dèjà bi ñuy ñëw dañu amoon benn conception comme :fra ñun ak dañu war a participer :fra si développement :fra bu Sénégal ndaxte ne réew mi ko dë() ñi fi dëkk ñi fi nekk ñoo koy defar te ñun aussi coopérative bu ñu bokk ñu si ëpp pratiquement ñu ngi dans le domaine ñu ci développement depuis des années ñu ngi ci transformation nous avons même notre présidente bi nga xam ne am na unité am na code barre am na Fra barki dem laay déggante mu ne waaye bureau de mise en œuvre noonu xam ne kon dèjà di gisulul waaw léegi li ñu wax daal moo di ñun actuellement ñi nga xam ne par exemple ñoo fi nekk nañ fexe ba porte ko waaw bu ñu ko dèjà boo calculer zone centre bi ñetti filières yi ñu jël prioritaire mooy gerte gi céréale bi ak xorom si kon nag ragal nañ ne fi mu ne léegi bu fekkee ne dañuy béy di transformer léegi dañuy yokk valeur ajoutée bi en même temps actuellement falukaay daal li soxla war nañ ko mën a def foofu léegi incha allah. kon sa xel problème bi ñu ne xam ne actuellement mbéy métier la mbéy métier la actuellement li ñuy def nii buñ ko réaliser dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dañ xam ne mbéy métier la nañ si am lu ñu bëgg sax ñu génn ñu bañ a génn dëkk bi incha allah. kon en pratiquement tout ma fait ñu estiré mais mosuma gëm loolu man dama gëm ne actuellement Sénégal mu ngi fi am li nga bëgg question de ci faut ñu yéen nag ci mentalité c'est dans la tête que ku tudd na boo calculer pratiquement Kaolack Fatick Kaffrine yëpp c'était une région Diourbel aussi c'est à près à 30 kilomètres de Kaolack kon boo léegi ñu tudd ko bassin ara zone bu nekk bassin arachidier bi actuellement affaire bi day gën a yomb rek wala am koom dina am vraiment liggéey dina am et puis industrialisation dina am au niveau de la zone centre fekk moom boo gisee euh, le président de la li ma mooy li nekkoon ca kali nit ñi moom la indi actuellement ni tey atelier bi ñu def nii tey li fi jógee yëpp yëpp yëpp yëpp ci population bi la jóge liñ fi xel yëpp yëpp yëpp yëpp population bi ñoo ko proposé kon actuellement nii moom li xam ne moom li ñu bëggoon déglu leen nit ñi xam li ñu bëgg mu ne acca def proposé leen ma li ngeen bëgg bu ngeen ko defee après man état la nekk euh, ñu exploité ko incha allah kooku nag ñu nekkul suñu domaine ñun dañuy transformé kooku pratiquement problème état la ñun actuellement problème la ñu soxla la ñuy def ñun li ñu soxla dañu am matière première ñu transformé li ñuy transformé léegi yooyu yëpp am na ay jafe-jafe mais waxtaan nañ ci ba am nañ ay joxe nañ ay proposition la bu ñu ko defaree je pense que actuellement nii tey li ñu soxla fii ci Sénégal ci matière première pour transformer nit ñuy dundee ko fi danañ ko am incha allah. Ndiaye maay vice président bu coopérative bu Ruftak nekk à Kaolack je vous remercie.